nga tromper électeur yi <laughs> ci jamono goo xam ne soxna jaar sama question ah, ah, mooy professeur Sougou ban PDS mooy dëgg parce que ñoom ku ci nekk mu ngi xëcc kan ni moom mooy PDS. Hmm. jaara ban ban moo ciy dëggoo fekk. jaara pour répondre hmm. pour man benn PDS du ci dëgg. man sama avis nag. Hmm. pour man benn du ci dëgg xamul tax dafa am fu ñu jóge te ñaanuñu yàlla. delluwaat fa. Hmm. pour di vrai quoi am na ñoo xam ne c'est des politiciens et mën nañ leen tuddee des politiciens de métier Elmat man bi ma commencé xàmmee ba tey ñoo ñooñu maa ngi leen di gis. Hmm. waa léegi nga jóge ci nguur jóge ci douze ans ñenn ñi di duggaat di génn di dem di ñëw ba ñu yegg si fii sànq wax nga ko ñu pare. pour am yéene changer li nga xam ne mooy système bi hmm. man ma wax ne système boobu noonu c'est plus profond waaye gars yi ut seeni méthode soxna jaara li tax ma ne benn du ci dëgg mooy dañoo ut ay méthodes yoo xam ne dañuy bëgg toujours di affecter l'actuel régime hmm. pour ne pas faire disparaître à vrai le système parce que bu dee da ngaa piqûre pour immuniser wu. Hmm. am na yenn feebar yoo xam ne mën na laa bañ a daal mais am na jàngoro yoo xam ne déjà bu la dalee mën nga piqûre pour mu deñ mhm. waaye day am loo xam ne dañu naan bul ko laalati wala lii bul ko lekk wala garab bi bul ko laal mais boo ci laal lële su la waroon faj à cent pour cent du la faj ça se passe comme ça ci langue politique bi dafa am ñoo xam ne dañoo taxawee taxawaayu virus mhm. pour dugg à chaque fois di affecter li nga xam ne moom mooy organe étatique bi effectivement xam nga PDS lan moo tax ma ni benn du ci dëgg parce que en réalité le PDS n'existe plus politiquement il faut que ñu oser wax ko. Hmm. politiquement le PDS n'existe plus parce que comment on peut concevoir waxoon naa ko fi nga nekk benn parti boo xam ne yow yaa jóge au pouvoir en 2012 2012 ñu teg ci ñaari élection présidentielle hmm. bokkoo ci benn élection sous prétexte que ni diw mooy suñu plan A ba plan Z. wala sous prétexte qu'il y a des yi nga xam ne mu ngi dox entre yow ak nguur gi fi nekkoon hmm. man góoma loolu et que ñi nga xam ne ñoom ñooy politique toujours sur le de des Sénégalais politique boo xam ne dangay ngay taxaw xastante bëccëg guddi ngeen toog waxtaan ñu am benn phase boo xam ne jóge nañ fa Elman am foo xam ne dem nañ fa ngeen bëgg ñoo wax da ngeen di porter plainte parce que ci biir yéen. dafa am ñaari pàcc. mais pàcc bële ñu ngi xool nan la ñuy duper yéen seen électeur pour parce que seen bulletin yi dafa xaw a li honorable di wax buñ deret tiis buñ fi jéem a ajluwaat élection déjà sax mënuñu ko. mënuñu ko dafay am yoo xam ne pour man war nañ koo dépasser quoi xam nga ñëw ñëw ba fii ñu ne la ñaar ñoo xam ne ñoo bokkoon bokkatuñu ñu ngi wax ci affaire bulletin. Mm-hmm. mooy que existé tuñ ñenn ñi xool nañ nan la ñuy buruxloo pour dugg ci yeneen parti ñenn ñi doon ne waaw nañ voteel Pastef man moom Pastef laa àndal te yow àndoon ak ñoom ay weer ci ginnaaw. Mhm. ñeneen ñi lii ñeneen ñi lii ne ñeneen tey yéen seen biir yéen a ni waaw di tamante dëmm comme ni ñu koy waxee pour man duñ ko war a dépasser quoi yenn mbir pour man war nañu yegg foo xam ne pensons au priorités des Sénégalais pensons au changement yow tu as échoué. wala bokk ci as montré tes limites am na foo xam ne dem nga fa wane nga ni fii nga yam nit ñi bëgg nañu rupture changé nañ jox nañ seen kàddu keneen ak mu doxal mais boo jógee ci critique kii mënul du ñu dénk réew ñi yéen a ngi critiquente seen bopp seen biir jóge ngeen foofu yéen a ngi waat fii jóge nga fii yéen a ngi waat fii ci ñoo xam ne ci yii rek lañ leen di dégg ci des débats yi nga xam ni. sans pertinence de débats yi nga xam ne amul foo xam ne mën na koo jëmale réew. Mhm. tey jii nii ku ñu fekkoon ñu génn ci biti ñu ne waaw Sénégal yéen. kii politique fu mu toll ñu ne référentiel bi waaye am na benn parti boo xam ne mu ngoon au pouvoir rek mhm. mais ñoom ñu ngi tamante dëmm lu ñuy wax <laughs> Ah, Elma su mu mel ni jamono ji ñu toll nii bii boobu coow li mi ngi fay ah, continuer di woy ba tey ah, Doudou Wade ak ñi mu àndal ñoom xam leen nañ di leen plainte ci ñenn ci ñi nga xamante ni dañoo bokk ci ñoom ndax jàpp nañu daal lu jëm ci bulletin yi dañu daal di am nu ñu ko bëgg a nuróole ba détourner xelu ñenn ci sénégalais yi leen bëgg a donc man sama question mooy ban PDS mooy moo authentique ban PDS. <laughs> PDS ñoom Doudou Wade wala ñuy porté plainte. Eh, xam nga ñii def nañ seen liste mais nit ñi yëguñ ko. Mhm. ñi bëgg ñi yëg ko moo tax ñi def seen conférence de presse ne dañuy porté plainte xam nga PDS dafa mën porté plainte lool. PDS <laughs> dafa mën a porté plainte. Eh, def nañ seen liste liste bi eh, bëgg na nit ñi xam ko moo tax ñu ne dañuy porté mais lii mën a nekk mooy. ancien système bi actuel système bi parce que comme ñoom dañ leen ràjjee dañ leen génne ci par démocratie sénégalais mais PDS bi nga xamante mooy vrai PDS mooy PDS bi Karim Meïssa a jiite boobu mun ànd na ak Macky Sall ban bi ànd ak Macky Sall. mooy mooy vrai PDS ndaxte Karim a ko jiite. d'accord ba ñoom Doudou Wade ak Tafsi Tafsi Thioye ñoom lañ génn. Mhm. nee ñoom daal bokkatuñ ci. Euh, PDS waaw ñoom ñoom daal waaw ñu ne dàq leen léegi ñoom it dem ber defar seen liste euh, xëj na euh, plainte wala nga def convoquer une conférence de presse pour dénoncer injustice bi day day indi genre kii bi mais daal foofu maa ngi xaar vraiment élection 17 novembre 17 novembre yi mhm. xëj na comme ni ko Boubacar Camara waxee démb mhm. dañ enterrer définitivement le système bu ko defee dañ xam ne ñoo nekk système parce que système bi yaatu na lool lool lool. ba enterré ko mu sulli ay tànkam. ah ah enterré système bi la 17 novembre de <laughs> Sénégal yaa ngi xaar bu ñu ko nan lañ koy dëj boobu nuñ ko nuñ ko nit ñi ma de seetaane. <laughs> waaw nekk na loo xamante xam nga. Ah, bu amul jooy loolu moom boobaa ñu ko <laughs> boo xoolee parti démocratique sénégalais yow munoo nga fal jomaay yow yaa bokk fal ci jomaay bokk ci actionnaire yi comme ni ko Bougane waxee man kat. actionnaire actionnaire la te actionnaire boo xamante ni nga damay xaar deuxième tour vraiment foofu boo Bougane xaw na xaw na xaw na fa xaw a kii daal. mais Diomaye euh, parti démocratie sénégalais ñaanal ko ànd ak moom dem compétit mu am 54 pour cent. PDS bëgg ëlbati ko waat ne damay baare Diomaye di gouverneur réew mi ci 5 yi. Mm-hmm. loolu la bëgg a def parce que bu fekkente ne da nga ànd ak moom. ñoom d'après boo leen di déglu dañu bëgg am majorité euh, écrasante ci l'Assemblée nationale pour que Diomaye li mu bëgg a def léegi ñu xool ko tëgg taxtan lu fi xew ci six yi c'est loolu loolu du intérêt Sénégal bu ñu commencé ñaari wax ñetti wax ñu ne dañuy def motion de censure parce que moo doon seen arme. donc parti démocrate sénégalais vraiment euh, ku dem ba ànd ak Macky Sall mi nga xamante tere na la nga bokk ci élection yi 2019 yi bokk ci élection ay ay ati at jël exilé la ah, tuumal la na da nga sàcc alalu réew mi ah, muy cour de l'enrichissement illicite yooyu yëpp am fi ci réew mi eh, nga génn ndaxte comme na koy waa ñoom gars yi di waxee ne ñeenti coalition ñoo fi nekk coalition kër brisé coalition exilé <laughs> coalition malfaiteur coalition yooyu yëpp man na nag eh, eh, gars yi gars yi ñoo ko wax donc mu nekk lu xamante ni vraiment mm. euh, parti démocrate sénégalais euh, ñaar lañ comme ni ñu ko waxee ñaar ñu ñu dàq ak ñu fi nekk maanaam ñu ñu dàq ñoo wax ne dañuy porter plainte ñu mm-hmm. ñu dàqul nag xëy na peut-être ñoom ñooy ñoo ànd ak Macky Sall mu jaaxal Sénégal yu bëri est-ce que lii Ablaye Wade yëg na ko ndax Ablaye Wade dafa dafa màggee dafa dafa âgé est-ce que moom li xew ci réew mi léegi yëg na ko la yëgul ko on sait pas en tout cas Karim Meïssa dama Macky Sall ay mburoog soow ñu ngi ànd waaye li PDS moom mooy PDS waaw mooy mooy vrai PDS bi d'accord mhm. comme Doudou Wade comme moom daal vraiment gars yi dañ ne ko xam nga mooy xam nga jamono ji boo fàttali ko à l'époque après mo son na xaaj uh-huh. ñi ne dàqan Moustapha mii dañ ko fi dàqoon mu ne man mun na leen ma génn APR Euh, ku mel ni euh, Moustapha Cissé Lo ak yeneen yeneen. Mhm. bu ñu la dàqee da nga ne ki ma dàq moomul parti bi. donc coow foo coow am foo fipp am foo ay werante am xam nga ne Doudou Wade mii nekkoon ancien président du groupe parlementaire bu bu PDS xam nga.